الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يجب علينا أو يجب كل واحد علينا أن يسأل نفسه هذا السؤال ألا وهو لماذا أتصدق سؤال وجهته لنفسي ووجدت له أكثر من خمسين فائدة عميمة في النفس والأولاد والأقارب في الصحة والمال وحتى في تركة بعد الممات وفي القبر وعند البعث والحساب وفي جنات الخلد جعلنا الله تعالى وإياكم ومن نحب من أهلها آمين بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw ba nu tàmbalee ci turu yàlla subhaanahu wa taala di ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk julit yi dafa am ab laaj boo xam ne dafa rot laaj bi ku ne ci ñun war koo laaj boppam laaj bi mooy limaza atasaddaq lu tax may saraxe lan moo tax ñu war a joxe lu tax ñu war a saraxe lu tax ñu war a bokk ci ñiy maye lu tax ñu war a bokk ci ñiy joxe ndimbal laaj la boo xam ne bu ko nit laajee boppam dina am juróom fukki tont waaye barab bee ko du laaj ak place bi ñu tànn ci fukk laaj bi bu ko nit laajee laaj boppam li mu koy jural lenn ci boppam ci ay njëriñ waaye ci njabootam ci ay jege ñaaleem ci wéram ci alalam wallahi dina ko topp ba ginnaaw toxoom ci àddina dugg biir bàmmeel dana ko topp ba mu dekk dana ko topp ba yàlla dajalee jaam ñi dana ko topp ba yàlla di leen rekle di leen atte di leen fay di leen dugal aljanna yal na nu yàlla boole ci ñooñu mbokk yi limaza atasaddaq lu tax may saraxe جاء في الصحيح أن نبي الله يعقوب إسرائيل والد يوسف وإخوانه لما فقد ابنيه يوسف وأخاه عمي بصره وتقوس زهره فجاءه جبريل عليه السلام وقال له أتدري لماذا أذهب الله بصرك وقوس زهرك وصنع بك أبناؤك ما صنعوا mbokk yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wax na ci téere bi nga xam ne mooy téere bi gën a wér ci hadisi yonent bi mu ne yonent yàlla yaqub alayhi salaam way juru yuusuf mu ne benn bis jibril daf ko dikkal ne ko yow yaqub xam nga lu tax yàlla gumbaloo la daf la silmaxa xam nga lu tax yàlla lem sa ginnaaw gi defal la ab boos xam nga natt yi la dal lu tax yàlla teg la ko xam nga li tax say doom taxaw ci yow taxawaay bii est-ce que xam nga lu tax yaqub alayhi salaam ne ko déedéet xaw ma ko de mu ne ko li annakum zabahtum saat wa ataakum miskin yatim wa huwa saaim falam tutimuhu benn bis yow yaqub da ngaa ren di gàtt xar ci sa biir kër nga fees ko lakk ba mu ñor yaag sa njaboot ngeen tiim xar bi di ci xéewlu benn miskin bu woor ñëw fëgg seen bunt joxu leen ko ci mu lekk moo tax yàlla nattu la nattu yim la dal mbokk yi kon ñun mbaa du Sénégal lii moo tax yàlla teg ñu nattu yi mbaa kon du lii moo tax yàlla teg nu nattu yi mu nu nattu kon loo ciy dégg ndeke sarax day dàq balaa day dàq musiba day tax yàlla du la nattu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu na fukki laaj ci lu tax ñuy saraxee limaza atasaddaq atasaddaqu ala alfuqara li anna sadaqa min almaaruf damay saraxe lu tax damay sarax way ñàkk yi ak miskin yi lu tax ndax sarax dafa bokk ci mbaax dafa bokk ci njekk kon soo buggee bokk ci way njekk ñeek ñu baax ñi ngalawaay alal ji la yàlla dénk xéewal yi nga toog dee ci coppati di jox say mbokk jullit limaza atasaddaq li anna saani almaaruf taqiyu saaniaha masaari assuu wal afaat wal hilaak lu tax may saraxe ndax sarax de ki koy def sarax bi di koy da koy aar musal ko ci tàbbi waay yu bon yi musal ko ci lépp lu bon lu war a tàbbi ci kaw suuf dugg ci sa kër kon lii moo tax may saraxe limaza atasaddaq li anna allaha taala yadra'u bisadaqa sab'ina mayita min assu lu tax may saraxe ndax sarax yonent bi nee na dana musal boroom ci jor juróom ñaar fukki anami deewin gu ñaaw juróom ñaar fukki anam ci façon dee bu nit di dee mu nekk deewin wu ñaaw kii saraxe du ci bokk limaza atasaddaq lu tax may saraxe atasaddaq li anna sadaqa tamna'u sab'ina naw'an min anwaa'il bala ahwanuha aljazaam walbaras lu tax may saraxe mbokk jullit yi damay saraxe ndax sarax day musal nit ci mbooleemu balaa yi nga xam ne toll na ci juróom ñaar fukki balaa juróom ñaar fukki musiba bi ci gën a tuuti mooy ràmm ak ngaana yooyu yooyu gën a ndaw kon kii saraxe sunu borom subhanahu wa taala dina ko musal ci juróom ñaar fukki jàngoro yu war a tàbbi ci kaw suuf li ci gën a ndaw mooy ngaana ak ràmm kon kii saraxe yàlla dina ko musal ci loolu limaza atasaddaq lu tax may saraxe li anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam amarana an natadaraka alxumum walxumum bisadaqat fiha yakshifu llahu dur wa biha yansuruna ala aduwina lu tax may saraxe damay saraxe ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma digal may saraxe ndax sarax yàlla dina ci jañal nit ay njàqare ak ay jafe-jafe ci sarax soosu la yàlla di teggee lor yi ci sarax soosu la yàlla di dimbalee julit ñi ba ñu gañe seeni noon limaza atasaddaq lu tax may saraxe atasaddaq li anna sadaqat bilgadawati tuzhibu l aafat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kii xëy di saraxe ci fajar ci waxtu xëy mu xëy di saraxe mboole musiba yi yàlla subhanahu wa taala dina ko ci musal limaza atasaddaq lu tax may saraxe atasaddaq li anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam amarana an natadawi bisadaqat al amrad wa axbarana bi annaha tadfa'u anil a'rad وتدفع الأمراض وأنها زيادة في الأعمار والحسنات doomi ndey mbokki jullit yi lu tax may saraxe ndax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam moo nañu ngalla waay fajee leen seen way feebar yi ci sarax ku am ku feebar sa kër faje ko sarax moom yonent moo nu digal ne ñuy jane ñuy jañe di puus bépp jafe-jafe bépp jàngoro ñu koy puuse sarax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na jañe leen feebar sarax ku bañ feebar tàbbi sa kër ku bañ a feebar ku am ku feebar bëgg mu wér yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam saraxeel ko waaye yonent bi nee na saraxe leen ndax sarax day yokk fan di yokk ay tiyaaba aqulu ma tasma'un wa astaghfiru allaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda ولا أعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله لماذا أتصدق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبادر بالصدق ونباكر فإن البلاء لا يتخطى الصدقة لتخمي سرخي ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ma ko digal moo ma ne ma saraxe moo ne ma teel koo def saa yu ma xëyee naa ko teel a joxe yonent bi nee na balaa mënta xëtt sarax ba wàcc dal sa kaw su fekkee yow da nga tàmm di saraxe balaa di wàcc bis bi nga xëyee saraxe balaa bi aar na la sarax bi aar na la ba balaa bi du dal sa kaw fa inna sadaqa fa inna albala laa yataxatta alsadaqat balaa mbokk yi mënuta pénétrer mënta bënn mënta xëtt sarax daa di wàcc ci ki ko joxe woon limaza atasaddaq lu tax may saraxe natasaddaq li ann allaha taala yaqbalu sadaqa wa yaaxuduha bi yaminih wa yubriha kama yurabbi lwahidu minna mahrahu lu tax may saraxe ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na saraxe leen ndax yàlla subhaanahu wa taala mooy nangu sarax ki dugal loxoom ci poosam wala mu delluwaat biir këram tibb dara wala sàkk fa dara génn di ko jox miskin wala faqiir wala aji néew doole balaa muy teg sarax bi ci loxo miskin bi ci loxo yàlla subhaanahu wa taala la ko njëkk a teg kon mbokk yi xoolal xéewal bi gën a rëy jullit bi saa yu xëye balaa loxoom di tegoog loxo nit loxo yàlla lay njëkk a tegoo ndax sarax bi balaa waaji di ko nangu yàlla nga ko njëkk a jox ba pare waaji doo koo jël yonent bi nee na yàlla subhaanahu wa taala mooy yar saraxu kenn ci yéen yàlla moo koy barkeel comme kenn ci yéen ku war a takk soxna noonu muy dajalee can noonu muy dajalee may gu jëkk pour joxe ko yonent bi nee na noonu la waa ji di saraxee noonu la waa ji di saraxee yàlla di ko dencal ba ëllëg yowmal qiyaamati mu dekki mu fekk sarax bi tol ne montagne uhud allahu akbar limaza atasaddaq lu tax may saraxee li anna mafatihu rizq mutawajjiha nahwa al arsh wallahu taala yunazzilu ala annaasi arzaqahum ala qadri nafaqatihim faman kathara kuthira lahu wa man qallala qullila lah lu tax may saraxe ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam day moo ñu wax ne caabi yi nga xam ne mooy ubbi wërsëg yàlla nga ko wékk ci keppaaru arsh fi yàlla nekk subhanahu wa taala ci arsh caabi yi ubbi wërsëg ku nekk sa caabi foofu la ko yàlla di wékk kañ la ko yàlla di wàcce kañ la la yàlla di wax caabi ji bu fekkee da ngaa nekk saraxekat yàlla day wékki sa caabi jox ko malaaka mu ubbi sa buntu wërsëg foo toll wërsëg bi dotteeku foo toll wërsëg bi wër la foo toll wërsëg bi wala ngaan mbokk yi yonent bi nee na ku bëri looy joxe yàlla bëri lum lay jox kuy nay nay loo ko ngottulu yàlla subhanahu wa taala daa di néewal sa wërsëg limaza atasaddaq lu tax may saraxe li anna rasul sallallahu alayhi wa sallam amarana an nastanzila arrizq bisadaqa qala taala fi lhadis alqudsi anfiq ya bnu adam anfiqu alayk lu tax may saraxe jullit bay laaj lu tax may saraxe yonent bee koy tontu ne ko da ngay saraxe ndax sarax mooy tax yàlla wàcce wërsëg yi mooy tax yàlla barkeel wërsëg wi yàlla subhanahu wa taala moo wax ak yonent ci hadisul qudsi ne ko yow doomu aadama deel joxe soo bëggee ma lay jox yal nañ yàlla boole ci joxekat yi yal nañ yàlla boole ci saraxekat yi yàlla nu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñuy saraxe du ñu jël sarax bi wërale ko seen bopp juróom-ñaari yoon wërale ko seen ndigg juróom-ñaari yoon wërale ko seen tànk juróom-ñaari yoon doog koo joxe Sénégal balaa nit saraxe day gàddu paquetu suukar bi ana taalibe bi mu ne maa ngi nii mu wërale paquetu suukar bi bopp bi juróom-ñaari yoon. wala ñaar fukk yi mu warale ko bopp bi juróom-ñaari yoon wala téeméer bi mu warale ko ndiggam juróom-ñaari yoon doog koo joxe mooy lépp lu war a dal sama kaw na dal sa kaw léegi kay nekkatul sarax léegi kay xërëm la yal na yàlla musal balaa ñuy bokk ci xërëmkat yi benn waay dafa dégg ku libéré picc yàlla dina la libéré ëllëg maanaam ku fekk picc mu ñuy jaay def ko ci kaaf soo ko rëccalee ëllëg yàlla dina la rëccal benn waaye dégg loolu waxuma wér na de waxuma ko pour ngeen koy def dama leen ciy jox misaal waa ji ba mu déggee loolu mu gis jaaykatu picc mu ne ko jox ma benn benn ñaata mu ne ko fukki dërëm mu jox ko waa ji jàpp picc mi di ñaan di wërale boppam di ñaan di wërale boppam di ñaan di wërale boppam di ñaan di wërale boppam di ñaan di wërale boppam ba mu doyal mu sànni picc mi picc mi daal di daanu ci suuf mënta jóg daal di teg laaf yi ci suuf daal di ŋaang benn dof a ngi taxawoon doon xool waa ji dox bi xool waa ji xool picc mi ne ko grand mu ne ah mu ne ko li nga ko sëf dafa diis li nga ko sëf dafa diis bàyyi leen li ngeen di sëf taalibe yi bàyyi leen li ngeen di sëf miskiin yi bàyyi leen li ngeen di sëf way ñàkk yi jël sarax tiimale ko sa bopp warale ko sa oto warale ko say doom warale ko say njaboot jox ko njabootu yàlla jullit bu baax buy saraxe day saraxe ngir yàlla lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun te booy saraxe li nga gën a bëgg loolu ngay saraxe doo saraxe li des doo saraxe lu lakk lu màgget lu ràpp loo bëggul li nga gën a bëgg loolu la yàlla wax subhanahu wa taala moom ngay joxe allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibaa'ih wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik allahumma fanas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله